COVID-19 COVID-19 am na nit yu mu jot jàpp fii si biir réew mi borom xam-xam yi wéral nañ ne du em si ñooñu rek te compte bi dina gën a yokku lii nag dalut xel waaye jarut ñuy tiit lu ñu war di def mooy gën a bàyyi suñ xel te topp ci digtal yu WHO joxe soo tukkee jóge si dëkk bu amee jàngoro ji mbaa nga jëflanteeg nit ku amee jàngoro COVID-19 war nga soril sa boppa toog benn palaas ba fukkak ak ñeenti fan te nga toppa ci digtal yi sooy dellu kër wala sa dëkkuwaay na duga si moto booy dem yow kenn pour bu la kenn jege soo waree duga si moto bu ay nit sakan war ngaa raxas sa loxo mu set ak saabu wala sanitizer te nga muur sa gémmeñ ak bakkan sooy tisooli mbaa ngay saxat ci biir fukk ak ñeenti fan bi ngay soril sa bopp war ngaa toog kër sa dugaa génn bu mu romba sa néeg ak wanag bi bu la kenn jege te bul di am ay gan soo buggee doxantu si biir kër bi war ngaa sol luy muur sa xar kanam gi di face mask wala nga fexe bu la kenn jege sooy tisooli mbaa ngay saxat soo soxlee lekka wala am leneen li nga soxla si biti na nga sant sa dëkkandoo mu andil la ko ba sa bunti néeg ci diir fukk ak ñeenti fan yi war nga seetlu ay mandarga yu mel ni yaram bu tàng saxaat su wow put buy métti sonna wala jafe-jafe ci nokki soo gisee benn sax ci mandarga yi na nga toog bañ a génn si saa si nga oo 1025 te doo si fay dara ñii dinañ la jox ay digtal yi nga war a topp ci fukk ak ñeenti fan yi nag war nga di ndox bu bëri di lekk-lekk bu baax yu mel ni ay xob ak ay léjum ak yu demee noonu ndax sa yaram bi mën a dëgër ci xeex jàngoro ji teg sa bopp benn place fukk ak ñeenti fan mun naa jafe torop kon am na solo ngay dégganteeg sa mbokk yi xarit yi ngay yëngu ci luy dalal sa xel te di def ay gestu si jàngoro covid 19 soo amee fukk ak ñeenti fan te benn mandarga feeñu ci yow mun ngaa génn mun ngaa génn dem doxi sa soxla waaye bul fàtte di xaw a sori ñi ngay jëflanteel ngir aar sa bopp sa ay dëkkandoo waruñoo teg seen bopp benn place xanaa ba suñ jegee fépp fuñ mën a amee jàngoro ji waaye nag ngir aar sa boppa waruñ di la jege te ñuy raxas ubbeekaay bunta yi ak yeneen jumtukaay yi warut tamit ngeen di lekk ci benn ndab wala di seddoo ay kudd wala di jëfoo benn kuddu suñ seetloo ne yow am nga jàngoro ji sa ay dëkkandoo dinañ dinañ jël ay matuwaay ci ñoom ñoom ñoo la gën a jege nañ fàttaleku ne aar sa boppa mooy aar sa ay dëkkandoo kon ñu ngi leen a ñaax ngeen dal sax si raxas loxo yi jël musuwaar wala biir conco yi muur gémmiñ yeeg bakken yi ci tisooli ak saxat te xaw a sori képp kuy tisooli ci lu tollook ñaari meetar soo si buggee am lu la gën a leer jokkool ak